billahi albatin nafahanallahu bihim amin ya rabbal alamin barke sëñ Moussa Ka yenum murin Moussa kalamulaay ne mu ngi dellu tuub li wajillahi yenum murit Moussa kalamulaay ne mu ngi dellu tuub li wajillahi ne mu ngi tuub bakkaare fi samaani dellooti tuub bakkaare fi niswaani nee mu ngi tu bakkaare fi samaani dellooti tu bakkaare fi niswaani ngir bëgg way ñaari ja saawa sàkkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndaxte noom saada sa daaray te bu noom xaaray ni mbaa naaray ni mboole am ku Seex Bamba xawoon ci réew mi ci ji laay bëgg a wax waa réew mi gannaaw bu ñibbisee ba jaar Daaru Salaam fal dem ba gànnaar dem jolof njaarim ne daam mu dal di ñëw njir bel ba ñibbi tuubaa danaa ca li luy njëriñ su boobaa ndax bamba noonu na sumay bir ci duniyaa lu mujje ñëw xëpp la wey ca boor yaa gaawu ba bamba xëye mbàkke baari taabi ci jilli xidmatil muxtaari la bir yi riiri saayiran wa baatina gaawu ba bamba gonte daaru màgg na Cheikh Bamba gonte na fa daaru jëm ndar caan ma mbaaxaan di ko woona dër dër fukk ak juróom ñeenti fan dib gaaw ci weeru gàmmu la fa gonte nee na keroog rocc na buti daaru ya jëm ko fa daarum nga fa ndaam ak sero ya danaa la fu ma sa jaar ba caama xa fa sidin muxtaar xam fa yeneen taat ba doo ci bóot yaa yaarame tar xolle sa gan yu tuut ya danaa la wax lu ma sa xew nga xam ne Bamba du moroomam naar yi caamaas dasin la dem Jolof Njaay am fa juróomi at du Samba Lawbe Njaay Daarul Quddus la sa caama sa sësi fa Daaru Raxmaan tel de koon jëkka sësi ci weeru tamxarit caama la sësi la Bamba ñëw Njurbel tubaab yooyu la sa lësi ramoo ma siiri la waxoon ci wuy waa Cheikh Bamba lam wax foofa doy na xër waa fukki at ak juróom la am fa njaarim ak nit ki fan man bamba doy na maa danaa la waxat baaxiyaam ci dox bi ci nit yaa di lam nga fonk danaa la wax fu ma sa jaar caag sa si de war ci jëri jee baxaama wam sa si bii bi la soxna mu limbàkkee màggal moo jara màggal ku ca dem fa màggal ngir gaaw bam xalan jolof la màggal moo tax ku màggal laay sargal xaarati yu ma sa tiraa bi safar la bamba wax màggali dal dane xasar yow doon na mu limatu nag ma ñaanal ma wér ba àggali ko réew mi sargal yow sox na mu limatu yow mi waada dogul ma wér ceng ba moraada danaa fi wéy lu tuddi saal sàkkoor ci ay xibaarin saara bi ngay buur xibaari nit hat yottee juróom yaar ci jiiri ji man la yem ak juróom yaar mbaay njàmme ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan jaax gannaaw dogal ba ca xadim ger waa jaax aadu billahi mina seytaane yal na nu yàlla féewaleeg mbaaxaani ma wax la bis ba Seexul Bamba ñibbisee ba Konaakiri caama kësa si bisu dibe di nit fan ca Korewa laggoonte kër man dumbe xaan ndeeg fereya war ngelem bul magam ja Mbàkke maane ca digg guddi la ne jaas fanaani daaru salaam daaru salaam daaru salaam daaru salaam fëkkat réew mépp doomu rakku tiijaani xam fa xayak dun ngan nga raw tëbaski ngan nga wayoon naa ko ci siidil mbàkke yoral ma martiyaa borom gaawaani loola ko fàttali meloo jinaani fukki nag ak ci bis bu nekk ànd ak giléem ak fukki béy lay sàkk ba muy xayak ba siir na tey ma reen di nit koy taxaw jox tan ya ñu man di daam ni ko jaaraama mu jàppaab jaam jébbal magam sëriñ ma mar borom saam nit ak juróom-ñetti ci weeru kore waa keroog daal ti ne laand ak fere yaa nit ak juróom-ñetti huruf yi tuuba tuuba tuuba daje bi sab altine wóor na booba la sey ku bamba wàcc daarul mar naan baay muusa ne boo keroog daaru salaam mooy ndaanaan keroog la damp naan si daarul mar naan maam jan na faati boole ñam yaati naan ngan nga mënee su koy ci duniyaa lu nekk am na fa bi sun yaa moo tax traawa ba nga daarul man naan kenn du fa mar kenn du fa xiw ñëpp ngay naan tabax yaag baraaga daarul mar naan dana gëndoog Tuuba fu neex waay mu fanaan jili guddi jar di ko magala ba daa ngir daraja ay Cheikh Bamba ak Muhammada salaa wa sallama alayhi laahu bilaali wa saxbi wa man walaahu fekk na maam Cerno tabax lu ay taax yu mel ni janat nii mi ngir baax te waa woon ak Cees ak Luga ak lañ daa yenoo yëree jëm ci daaru Cheikh Modou Ndumbe Mbakke def na fay kër ci ndigalal Cheikh Bamba gaayam yey si kër Cheikh Ibra Faal wasiq Ibrahima Sarr def nañ faay taax yu rafet ñëpp ni kaar lal ya mënee su koy xibaar baa doolo lal yaa waral mbaaxaan ja déglu loolu adda ju woomal ju ñu naan demba ngari moo de la saa secrétaire saf ku gore gannaaw dugal ba jëkk di mu ruuxale diggante bamba ak noonu ba moo leen féewale keroog ba jeex bamba boo daaru salaam tàggoog borom gaawaan ñu joxante salaam bisub keroog la sant si di gaawaan mu jëndi ay lal daarul manaan mu seq ibrahima faal saadiq ba baabil muridiina kilay lampam ba ca yooya fan la ñu ni seeni ñu jëndi ay lal ya gënoon fa ndar fukki lal ak ñaar la ku nekk jënd ci ndigalal Cheikh Bamba lal yaa xànd lal bu ci ne mel ni weer mbaa wuuru ni burusin marfaatin muy fiiru Cheikh Ibra Faal foofu la def ci saa ko saf ci gilim ngir naa ko bañu bawa tamaa ka jëm si daaru barom bu ngoongo fal ya di waaru ñu sippi sëf ya buntu kër Demba Ngari ardaloon bi waaye mbaxaan bi suy mu nañu leen ndëkkati bawri laa di làmb saako ya di làmb lal ya moo làmb tànke lal ya neey fetel la Cheikh Bamba day bëgg jaar ngir yàlla bisub keroog la da daqey dem jaarim xibaar ko mbaaxaan dage yëpp di ko yéem keroog la mbaaxaan dal di gis kumandang xibaar ko bir mbar ma dal di téléphone borom daram Dakar yi yëpp ay digg borom darak borom Dakar yi digg borom dara ak borom Dakar wuy digg laar du wax mbaaxaan mu mel ni dëgg ca yooya fan lañ dal di wakk quartier yëgal ko buur yëpp ñu waajal garde siix yëpp ñëw ci ndigalal maam Thierno di teeru Cheikh Bamba tabax tey borno Cheikh Bamba ñëw daaru ba weeru gàmmo gàmmo ga gaaw la mu jóg dërëm mu ca yooya fan lan noon ba tudd mbaaxaan dëkk fa Mbàkke ak bàpp dal fay jaaxaan sant fa waa Mbàkke lu mel ni campement ndekete ban ba laay fexeel mu naan ko ma mag ña takkal ko fa lu mag juróomi néeg wala juróom benn mu di luy gën a foog ca suba mbaaxaan delsi mbàtteeg bàpp ànd ak glaas njàmbur kepp keroog la mbaaxaan wolu Seexu Bamba fa mbàtteeg bàpp mbàtteeg yi pay bëmb Cheikh Bamba bañ yebal ca maam Cheikh Anta Cheikh Modou Guèye jëmoo ñu dal de gont ba ñëwee mu mer de xool naa mer di du ma wax ak yéen abadan maay garde maa de borom réew te moom laa soxla ne ko borom dar moo ma yónni soxla tey réew mi maa ko moom te doon naa ko te nit yaat ak yaari ma xam naa ko ba ñu ñëwee xibaar ko say ko bamba mu ne ko ndaw du suru maatam baay keroog la bamba gonte daarul man naan war ci keroog ga togg sii di gaawaan ba mu ñëwee ba jublu mbàkkeeg bàpp gaaye na yoo ñële de raam ne wëpp mu ne ku mokkal xasida si ndiindi na ma ko jàngal ba ca mbàkke doodi sëriñ ma ko jambay ma dëkk longoor ne maa ko mokkal bamba naa ko wëw góor muy wax ba jot wa daami ren ca wëy naa ku la daayin mu naa ko doy na xablal wusuuli man laa gaam naa non naa su may noon jëkk tey lii wér na ab soxdu takkati ci mbakkeeg daaru te ku fi ñëw sa xol su delloo waaru dal dina cëpp wàcc jaar ba jàkka ja dal dina cëpp wàcc jaar ca jàkka ja julli fa ñaaru rakaam fa maxraja woolu borom saam ak borom gaawaani maam Thierno Seydou Afia ñëppay waane ñu ñëw mu wax len lool sañee fu koo wax ngir ko ko di nga xale ku mbaate nga torox dal di ne mbënd génn mbaaxaan dal di lox di réew réew yi def lool ma nee fu wax Cheikh Ban ba ñëw tàbbi ca néegi mbaaxaan ne ana mbaaxaan mu ne mu man di ko ma dëkkoon fa sambe moo santu mbaaxaan yaari fas ya gambe jëraa biraayima jëraa fi njàmbur na Sëriñ Tuubaa ne Bamba yaay mbër mbaaxaan waxoon nañ la ne bul woo bamba nga naa borom ndar moo ma yónni mbël ma nee na bala gom ak sëkkal laay dégg fa daaru mar naan kon danaa fa àgg wijite kër ga ba mu dañ ma delloo wax ko borom ndar seefi yëppay dégg bamba ne cell tontuwul mbaaxaani dal di ne ñokket moo borom gaani war ci kër ga dellu daarul mar naan maante no faati xelli kaas ya ñuy naan ñu te jaay fan moon ba dal di ndar di si ak borom da dëgg ya dëkkii dër dër keroog laasoona ba dellu jajoo dem dar kalaame Bamba mi faj aajo borom dar boole ko ki quartier gendarme yaak spécial ndaw gàcce commandant nga nel gàtt yaak sa ñëpp ba woon dal di ñëw ca saasa mu boole ko sëf yëpp ak seen buur ya ak seen i satul ci réew ya man ñang ja gànjool sa kanaari góoram xanda dagam yëpp di bi mag puutaram balaa ca waalo dal di jàll dexee ànd ak dagam yëpp di dikku soxee ñoolu basin kumba njam mu jiite kàngami yor xare ba ñuy si siiti ñoolu baay mbayaar ma neen mu wuy ak ño ko bore si fi yëpp pay daw si ñoolu bar saalum moo ànd ak saalum ba mu ñëwee ngay si ñi faf ne maalum ba mu ñëwee ngay si ñi lañ woo bambaax bur si ndaaye loola kay kaptien ba ñu yónne ndaw ma wàcci laan gaabu wayu gandoom ba rag ba si ñuy nëbbu baay jàmme ne aljuma lañ wàcce fa ngaay di petal réew mi paras ne me daw be dem dulo xamet ñëwe lañ deloo Seex Bamba Seex Bamba Seex Bamba Seex Bamba tubaab ba woolu ko ne moo yor xare ba keroog bisab gaaw la Bamba gont nee ndaw la bul del si te bul ma tontu keroog la Bamba gantu nee bul del si ma tontu keroog la ak bu dajee fa Cheikh Bamba de jooy ba woobe naa ko nga wuy ji yërëmal njaboot gee borom Tuuba mbaalu ko mooy musibaam ci Mbakke Cheikh Bamba naa leen digalal sunu borom laa déglu waaye waxuma ak seeni morom xawliya laa ilaha illallahu muhammadun arsalahu illahu baay Muusa ne bar saalum ak bur siina fekke mbaxaan handa Tuuba baak bar ngay bur mbaa daan ca suba cuuñu dellu woolu Bamba ne ko na ñëw mbaalu ko mooy muy balba ka nuy tàkk mbakke tàkk daaru ma jàpp ñépp di fi jaam ne maaro Cheikh Bamba doole ganto par wakkirloo ne hasbunallahu wa ni'mal wakiilu yàlla wala yoosi naka qawlahum la wax wala taqaafum waqafoo ni la sax kuy ragalam ma joosi mbaateem nasaraan bay fàtte yàlla da dem niiraan lastu aqaafu lu raqal xin bax dama fawaltu umri ilaa rabbi sama ilaa si waayanti hi daajaalu wa kullu ma wallahu wallahu jaalu rafa ahlu badri islaama wa sasul bu jaara wa salaama baa bi maa yitawal wa suura man loo ana xannaatu sëriñ bi wax ne duma wéy jaaba daa te ndigalal ñëwul ak salaa wa sallama lilaaw bil aali wa sahbi wa man walaahu alaaji say xoante yónne njugu njaay mu dem keroog wax ko tubaab mu ne saay mbaaxaana xandang moom ba gis ku ma àndang ne ko waxal mu dégg buur yëpp a mu ne ko Cheikh Bamba ne man la ñëw tey illaa bi nilaayi moo sañ baa tey capitaine ba wax ne ne ko kon bettu ma ko tey jii mu xam ne maa yilif ba ba ma ko tey jii ma tooñ Mbàkke ba daarul man naan jàpp murid ya gooma me jébbal mbaaxaan ba njugu njaa ñuy xibaar ko Bamba mu ne ko yàllaa ngi fi ak yónneen ba keroog la Bamba naan su ceddu yi ñëwee ak sax du tàkk fas du daw fu ñu yawee kum fekk toog bul jóg taxaw dara du am kum fekk tëdd nelawal te yor sa gëm kum fekk toog bul jóg taxaw dara du kum fekk tëdd nelawal te yor sa gëm laaya ja yàlla wax saaru Imraan gaa yi ba dee jox nañ ko daarul ma naan laaya ja yàlla wax saaru Imraan gaa yi ba dee jox nañ ko daarul ma naan la yàlla wax naa naa si na naasa xat jëmma xon làkkum la mum fa saata laaye di yàlla wax ca saaru faal baatin bi laa jox gaa daaru kenn du laal téeméer bu ñëw mbàkke ba jàll daaru mën na te ñaari téeméer bu ruuyi waaru junne ñëw daaru ba del ci mbàkke mën na te ñaari junne doon a sëkki keroog la daam fanaan a jàng aaya keroog la daam fanaan a jàng laaya ba ca fajar ma jusi ci gi róoya loolaa de alfun yax li bool ca saaru lan mooy borom hunnay ni ab sox du takk mukk ci mbàkkeeg daaru te noon bu ñëw daaru su delloo waaru kàngam yi mu ji del si jibbulu argoom yi buur yéeg nasaraan ya noppalu su ma noon yu mokk nañ bu yàgg maa ko wax borom Tuubaa ne wa makaro wa makara laaxu laa wax wala déggee ñi doo ku dag wala kuur noon yëpp mokk nañ yàlla mooy buur li le bamba li bu gaa mbaxaan ak buur yaa ànd ñoom fa daarun ma naan doora yebal ala di seqoan saa mu wii ji leen a mel ne la gont keroog la bamba yónni si di gaawaan mu war jëfalu laay réew may saawan alaaji yusuf boobu moo def santam moo tax mooñ mooji moo dee kemtam sëriñ ma mar jaaraay ma gëm ci saayir fi mu ko siqal defereel ko xaatir keroog la war wajan wuréy te gudd wutu du soxna Mbàkke koo kaa tedd maam Cerno war fa su ma gamaan ak ñoom mooy ngilimbul Cheikh Mbàkke maa ne moo ko moom ñu nga dajeeg tubaab baag mbaaxaani ak buri yëpp foofu ñuy dimbaane ba ñu nuyoog tubaab baag mbaaxaani mu laaj sëriñ Tuubaa ñu naa ko maane mu mer ne mer di bu ma kenn maane ne leen ko bettuma ko tàkko saani tey jii ci gaaw bi mu xam ne maa gaaw kënoog di beeg ndelli gi léegi yëpp naaw alaaji Cheikh ko kiley borom saam mooy magi Cheikh Bamba te man naa wootu daam maa cerno mii noo doy rakkam yu si ci moom moo tax mu yónni ñu ci yow tubaab ba luum dal di ne quartier gi nañ wiy daaru dal di ne quartier gi ñëpp nañ wiy daaru balaa tamit Cheikh Bamba wiy ndakaaru ca wawawasu la dajeg sëriñ daam dikk na yow daam ne ko de sab jaam sañu ma laa digal ni ma wax la mu ne ko may naa la ko loolu jawaab la mu ne ko bul déglu kurul bur yàlla mu ne ko yaay suma jawaab nga filaali wa fil haraaba min kitaabati saytaanu maalo ndaa wa jundu sultaanu fekk sëriñ Tuubaa def xasiida guñ naa walilaahi borom masiida am walilaahi miraatu samaawaati wal ardi borom jumaa ba mu woye xarab ya ba laat ga la daldi way ji noon ba baan baay waat ga wa jaalal muxtaara salallaahu alayhi fil aali wa man wallaahu law ay jaaban man i xan mi ni larar su loo xaala am si laa tax saal njool màkka moo ko ne doxal hiir naa la borom Tuuba te bu ragal lori bindeef wër naa la liftul karima waa taabalil xiraa fala asaaloo kaasiraaji fil qoraa la bamba mujj daarul manaan dal ni ne ñot ket walu nari bilaan keroog laa nag naar bu tudd say xunaa wala du daadaa kooka xam na say xanaa keroog la xandak naar bu tudd Seyxuna wala du daada kooka xam na Seyxuna ak naar bu tudd Modou Fall daymaani ñoo sant Cheikh Bamba mu gis mbaaxaani warulu fas warul gilim day tànku ba mu dajeeg ndaw ya waxul kenn waxu ko ba mu demee la julli ñaaru rakk faroon gi gis ga gaay war koy pakk ba salmalee la jóg ba ñëw fa guy ga ne makk jublu penku mel ni kër ga moo tax ba waaye mbiril de wër gi gis ga nguuru amandi na dewar maal guy ga moo tax ba waay mi dil dewar gi gees gaa góoru amen ñewel dewar maal guy ga fekk tubaab yaay wàcc jëm ci daaru fekk tubaab yaay waaj jëm ci daaru kàngam yi yëpp yëpp dal de waaru buur yëpp ak nasaraan yi yi rëb rëbi tubaab yaa ngi de xiim di sab-sabi Cheikh Bamba dal ne ko mbaaxaan yaa ngi maa ngi yàllaa ngi yonanta baa ngi yaa maa ngi Cheikh Bamba dal ne ko yaa ngi maa ngi baaxaan yàllaa ngi yonante baa ngi seere yaa ngi Cheikh Bamba ne ko mbaaxaan yaa ngi maa ngi yàllaa ngi yonante baa ngi seere yaa ngi buur yàlla daf la sant jaamu yàlla nga bañ ko man ma nangu doy naa yilla kuy bañ la yàlla digle ak rasuulu digle bañ naa loola ñoom laa wóolu luy loola nay loolu du yaa moom xare bii waxal defal nga xam ne maa moom xarnu bi luy loola nay loola du yaa moom xare bii waxal defal mbaaxaan nga xam ne maa moom xarnu bi mu ne ko dégg naa da ngay bëgg a jaar fetal ya ak doom yaa nga def ay hangaar Cheikh Bamba dal di ne ko àggal daaru lu kër ga ba mu dañ waaru Cheikh Bamba dal di ne ko àggal daaru lu kër ga kon nga dal di waaru inna allazina kafaroo wam tannahu min tawbatin waaw jasa ma tannahu butunu zakana ala qaarib wal kullu minu min sadidin saaribu buur si ne tubaab baang baaxaan ñaan leen fa njëkkee ci nu daarul man naan la buure yëpp dal de saawaan tubaab dal de war ñu xaan dang baaxaan karte ga dellu ndar ci buuti waa badar pexe yëpp dal de niin daaruy sikar ca booba waxtu la sëriñ Tuubaa jóg taxaw di wax ñu xam ne buur yàlla jóg keroog la ñëpp wi fanaani njur bil kàngam yana Cheikh Bamba duñ ko gërbël mbula ki sàq gi sugeen ñëpp a ñëwoon fa Mbàkke sàkka doomi la dor yamamoon liman ma sekk jullig Abdoulaye xaar buur yi sa Jóob ak Ibra Jóob duñ leen xaar keroog la Cheikh Bamba di lii buy nasaraan kenn làppatu ko ci buuri Soodaan limal ma sekk julli Abdoulaye Xaar Burisa Jóob ak Ibra Jóob du leen xaar keroog la Cheikh kenn lappatoowu ko ci buri soo na leen ko gëf jigéen ne mel nga ay xat te mën lu la ko dara dara ci ay wet nga gëb ko delloo si fëkkër ay bokkam ndax genn guddi dana tàngaam ca ndam ne ko déedéet mu ne noonu laa mel man say ku Bamba la ma tiit du ay wal xam naa yéen juróom yaari at ak lu topp te mënalu len ma dara maa man ñëpp kàngam yi yëpp ay mujj del si jébbulu addoomi buri nasaraan ya noppalu dal di ni wël bi del si daarul man naan keroog la war fasu sii dil gaawaan keroog borom tan togg sii gaawaan ñu dal di xànd del si daarul man naan ba mu ñëwee la dal di jaar fa jàkka ja julli fa tàkkusaan ñu xànd ak maxraja ba mu sëlmalee la xoolu bokki mbakke wax leen fa loolu ñëpp mënuñ koo fekkee te ku ko sikki sakkadal de xalakoo gaawu keroog la gontee daaroo fulku ku weddi li nga dem ko laaj sëriñ daam moo ma ko doon xibaar ma way ko ngir daam wala nga laaj sëriñ ma mar njaay fetto moo yor keroog buntu ba doon ko wattu wala nga laaj sëriñ ma mar njaay fetto moo yor keroog buntu ba moo koy wattu xam na ca lu ma doon xibaar fa tuuba tuuba tuuba tuuba keroog atam kalier ba bég naa booba alhamdulilahi xaalal ku duumi dem dellu gaa ngi dellu dem xadiimi ma wax la bis ba bamba gontee daaru jëm ndar bi wiy gànnaar ba naar yey waaru fukki fan ak juróom ñeneenti gaawo la bamba gontee daaru dal de saaw bii bis la soxna mus li doon jay màggal ba tax ma woy ko yàlla naa ko àggal budul ko nag moom duma wuy xibaar yi te suli boor yaa ndam yi war na bëri keroog la génnee dox fa daarul man naan maam ceer na jokko fa su sii di gaawaan ba mu ñëwee borom ba mbàkke baari la dal de naari waaye gànnaari Mahmadou Fall ak sayqu naa ñu dab ko kilii ko toggoon ca gëlee ma muur ko ca tàkkusaani suuf la romb sa baay fekk na dëkk ba béppaati saawaay baay njàmme ka ne fa buntu jàkka ja loolu saa baay waay dal di nuyoo moom ne ko yaade saawaay fekku fa kenn ku du man ca jàkka ja du mag du ndaw nit ñëpp daw ngir xare ba saa baay nuyoo moom dal de jooy de bis bisi mu naa ko fas biir léegi ma dal de dellu si moroom ba kanka dellu laaj moor maamu saar tekke sëriñ ma kumbali ñoo ko si yaar bam saa boxaanteeg ñoom la wiraat jëm bayti fa tooli bayti yàlla wàcciyi xatte fa la julli timis guddi di biir jaaf ndawal borom gaawaan ne siif ak reeja mooy njugu njaay ko borom gaawaan ne nee na nga dem jur bel te ngay fanaani keroog la wëlbate ko jaar si ngaabo fa la julee gee murit yey nëbbu keroog masamba kuré juuf sa ngéem naa jooy na ba far ji bu ba sooy naa moo tax fa ngaabo xew fa ngaabo bañ fàtte raagaag laa ji lee raw saabu moo tax ba Seex Bamba demee fa njaarim mu sanc fag daaru yebal faay doom keroog la dal di woolu xaali baaba ak say xoram sa toog sëriñ ma sàmba sëriñ ma sàmba kura may leen kër ya moo tax baal te bang fa xaand ak dër ya sëriñ ma sàmba tuub na faatu ñu fab korot ca julleekaay ba yaatu keroog la wax fu ma def ab julleekaay def naa fa lool ku ko xamoon def ko jotaay te defa ñaan defa siyaare abadaa te defa tudd yàlla ak muhammada sëriñ bamba ne ku ñu forop mel na ni yaa nga tuuba tuuba tuuba sooy dikki segro dal de jaari tuuba keroog la bambay dénk xaali baaba ngir la mu daaxaan dak tubaab ya booba xaadim ne koy yaa xaali kun fi diini baabal xëyri wala te kun fi diini baaba sëyri keroog la xaali ne ko tuubal naa la Cheikh Bamba dal ne ko jéggal naa ma wax la guddi gam waree fa bay jëm ci njurbel nasaraan du laabu daqaar ga woon fa dala bam fa tolloo lawaati naa fi laa fa gaayee tolloo moo tax ba sir wu faal ma gën di guur ne dala man nab dal def fa daaru xafoor Cheikh Modou Fall saaliwu may doomam ja ànd ak sëriñ tay ba ñu wër hurum ja moo tax baal te fa ànd ak dër ya ya dañ fay taxaw de sàbbal bamba subhaana man fil bari wal bari ma أجر الجارية وكلا جماعة سبحان من لجاد بسفينة في قمة لصاحب المدينة سبحان من يلج في النار ليلا وإدرار في الأجار suuko gëmul yëral ji saawa saat koor moo ko waxoon ma wéy ko bamba mooy góor yaa alal bëxri woon a jiiri yaa la bëxrin jii ja ak jiiri Cheikh Bamba dem na fépp woon a woote na fépp faj na xaajooy ñëpp koo mokkaloon boo bee jasaaw sakkoor baab jëri jàngi mooy nawet bi liy noor xaajab koo bab suuf la moo dim kaamil baan baay misaalam alquran mooy kaamil déglul ma wax la ba mu waree ba fa daqaar tuure dal de fàggulu keroog la wàcc woolu soxna mbakke mooy soxna faati anta doona sakki koo kaa jigéen ab si jaayam ta mbakke di ndey alaaji mamar moo tekki sëriñ Masamba Tuure jóg ànd ak moom ba ñu nuyoog Cheikh Bamba naa ko doomu room keroog la naa leen seen borom gërëm na leen yónneen gërëm na leen ma nit ma sant Masamba Tuure dal daanu fi kanam ak Bamba dal kaanu ba mu gisee ñoom la war a jëm bil sëriñ Masamba war tubaab yooyu gërbal naa ko comment alors dalal dellu Cheikh Bamba dal de kuy digal mu dellu dellul te dem mu leen ma del si Mbakke mu ngi naa ko dénkaat naa la soxna Mbàkke alhamdulilahi la si yuridu nii illal mahadi wayu sunul badani moo tax ba si Ahmadu Laamin Tuure yor soxnaatu Mbàkke li lee kabiire li lee tax ba soxnaatu Mbàkke yi màggal Mbàkkiig Tuuriig Tuubaa de waaj ak Njurbel yàlla na yàgga woote guddi màggal nu de ko way jaa ba man xàggal moo tax ba waa Nduleeg Tuureeg réew mépp taax yaa ne wer alti yaa ngi keroog la daam fanaan si taaxi njaareem kàngam yaa tubaab yi ñëpp di ko yéem ñëj ko ci biir su seeti mbaaxaan de wax ne bu ko kenn seet si guddi keroog la wax ci say ko bamba seex bamba seex bamba seex bamba sañu ma koy nettali gaa yi bëmb seex bamba naa ko ba ci lun ma rooxee mbaaxaan su ko lëgee ku ma merool danan ma roox mu naa ko maag yow dun ma roo ci Cheikh Bamba du muyu ko muy ngerten ya keroog la naa ba wax naa mbaxaan guddi keroog la dellu daarul man naan foofee la Cheikh Bamba fanaan a julli ba fajar leer yi badar yay guddi keroog tubaab baan dang mbaaxaan ku ñëw ñuy seet si daarul man naan bëgguy nu ñuy dural keroog waaye daaru ci xeeti ngànnaay yañ yoroon farwaaru baay Moussa ne fekk fa maam Thierno mu wan leen lépp gisuñu dara dara daaru gépp lu dul li gaal yu mag yu def ay tiiri ñu daldi dellu seeni wax di biiri keroog la kàngam yépp ak dammel ya ak jell war ya war di daw bàmmel ya ak ceddo ak chef ya ca yépp ngir xam ne lëf dina fi am loo xëpp keroog la Cheikh Bamba ne suu si njurbel moo ma fi xoo danaa fi ñëw ñuy sargal tiimiiri xat suu saa ngi jooy ngir moyi kenn masu fee jaamu lu dul xërëm yi sunu demee baag ga xaamal la sëfi danaa fi ñëw tey nun ci xaamaak sëfi subhaana rabbiyal karimi lëg rëmi man sa nani an jaalibil haram rëmi baa la si ama asaya bil mamaat fawran wa baa man xallani bi samat man amani bi suu'i baabi larar duniyan wa uxran laa yufaariqu sarar kafaytani man kafaroo ka turaax wa kullu ma li yujuru lura kafaytani al kufra wa kullu man kafar wa bi xadaytana faran ba da nafar ba ba setee da nit fan ca weer war bisu dibir la bamba xëy ak leer ya duma la wax xibaari njur léegi baa njàmbe ne nigal baxaama la sa sin ma fekkee xaayee na njur yendu tuul ba tàkkosaan mu gonti wéy keroog ti waawan la fanaan Cheikh Babou Sylla bàyyi laamin Sylla jox ko faay sàq yu rëy ngir yàlla moo tax borom gaawaan tabax fa kër ga tuddee ko Touba Toul moo de kër ga alaaji bay Muhammad al moo fa del doom je ku baax la moona guddi keroog keroog ba Cheikh Bamba demee ci waawoon fakka sëriñ maru bëggee la jaaroon fala fanaan réew mépp ñëw si yaara murit akub tiijaan ci doomi jaara ba bërtëdee la tabbi gaal ak jiiri keroog bisam altine la kenn du duuri yàlla ak rasulullahi ak jibrilo oh, alalu badi ñoo ko yor moo kiilo oh. keroog la naa suma gannaaw ak suma kanam ñi lii ma yor ñoo ma ay béjante fu ma jëm keroog la yendu kel ci biir param yiir saxaare dañ fay taxaw yendu fay riir keroog yiir keroog la daam wax Seexu Maamur Jaxate ak njóogu njaay wax jile maa ngi koy waxati ne murid yi suma yoon wii suma ñibbee Tuuba Tuuba Tuuba saxaare dootuñu fa jóg su boobaa jumaa ja day taxaw saxaar yee yuuxu robino ya wala ngaan kenn duutu waaxu tubaabe ñooy taxawu mbooleem yoon yëg ñooy raw sumay murid keroog ñoo buur yëg wa maskani salim minal fujjaari wamnuna laa lëxli bi ma in jaari dal di ne Cheikh Ahmadou Diop ma dëkk Ndar yaay sama seere yaag Serigne Mbacke Badar yéen laa bëggoon ngeen nekk foofay jàngale waaye damay tabax juma baagali guddi keroog ganu booti waa won rombi di xëy ya jin ga la ma ko waxoon ne ma li am fii dana am fa Tuuba waaye da leen a fekk làkku boobaa keroog la Cheikh Bamba daloo ciru cara toog jublu penk koy jàng saaru Baqara ba mu yeggalee mu teg ca saaru imraan ba mu yeggalee la wooru sii di gaawaan dal ni njuugu njaay wutal ma waane mu dellu wooxal ma borom gaawaani mu dal di seen xaali ma mar kumba foofa mooy taalibe mu dal di wàcc mu jox ko leetar ne ko soxla naa ko na dal di dikk ndar xëlla woo naa ko ma fab da jogalaaji sii di anta <coughs> fa ngaay keroog ba bamba laata gont <coughs> mu fab da jogalaaji sii di anta fa ngaay keroog ba bamba laata gont Cheikh Faté jiite ma fa ngaay moo jiitu won ko borom gaawaan këram moo jiitu keroog la Sidi Anta dal di wiy ndar mel ni ñaan ndar fay ku bamba muy mbër fekk Sëriñ Tuuba fanaani fi ndëri ca kër gu yenn yoro yoroon ni baari guddik talaata la fanaani ndar géej seen doomi ndar yi yëpp naa ko yaa géej yenn yoro ko dal di bindal leetar ànd borom gaawaan ni jox borom ndar Cheikh Bamba wax ko biri daarul manaan ak biri xaasoona ba tudd mbaaxaan keroog borom dar woolu duudu sekk mooy bindkat bi koy bindal loo nekk mu ne ko nel mbaaxaana ak commandang suñu demee daaro danañ xam kang-kang alaaji mor faati tuure madina moo indi leetar ba keroog ci diina mu jox ko maam ceerno fa daarul marnaan maam ceerno faati mbakke jox ko mbaaxaan keroog laa suuna barus ba ne tasax Cheikh Bamba riik yaay garaatam mu torox ñu dal di koy riwi ki dal koy folli mu daw be daw me dem jaalooy xoole xangaate aat na fu ne ndax mu falu xaat ba mu ñibbisee la gën a far folle ko aat déglul ma wax la fan ya Bamba sax ndar ak la ca xew nga xam ne Bamba mooy mbër Cheikh Bamba moom kër gam daloon fa ndar géej day yetti kër yu tegaloon ñu naa ko géej bis bu xëyee waññilu ñetti téeméer jox ko waay kërug suuf ga ñu def ko seen reer mu dellu wëññeeti ñeneenti téeméer jox ko kërug diggal ga loolaay seen reer mu dellu wëññeeti juróomi téeméer jox ko ñetteel ga loolaay seen reer alaaji Seex koy teg ci loxoom mu teg ci seeni yoxo booba mooy loxoom ba muy xëy ak dun ma dal gont war pakke jëm gànnaar lebul fa kont lam xaloon ca jàkka yaak jumaaya ngir yàlla mi kenn mënu koo hikkaaya ak la mu daa jox waa nguur ga koy lijjanti borom Tuuba fi saay ni nag ñu ko doon bijjanti xam na bisab aljuma waajuma ja ne ko nga ñëw jiite ñu yow miy waaja am na bisab aljuma waajuma ja ne ko nga ñëw jiite ñu yow miy waaja dajale seen hàddiya dem yónnee ko jox ko borom gaawaan mu andi ko mu ne su dee loolu demal delloo ko nger gandu jiite juma xam nañ ko mu ne su dee loolu demal delloo ko njargan du jiite juma xam nañ ko sàkkaatuma gan gu ñu jàppaan njaam te saa njëfel gi wóor na réew mi man daam gan gu ñu jàppaan njaam te saa njëfel gi wóor na réew mi keroog la waa jumaa ja jooy banaa soo doon ko dee jot ñu naan banaa ko téeméeri junni million ci ay ruux kon ñu jox la ko nga jot ci seg Cheikh Modou Ndiaye maa bi bindu loola yónnee ko Cheikh Bamba Cheikh Bamba mu fay leen loola yal nanu bur yàlla defal ci Bamba lu kawe sun yéene fegal nu sanda amina amina na leen ci dara jaay muslima toog Maymuna moom may xalaat baayam ba sos màggal gi yàlla na boole mbooti mboolem kër gi gaaw baayam xëyee mbakke baari gaaw la gontee daaru jëm gànnaar soxna muslimatu mbakke roy na la baayam digliwun ci réew mi budul ko nag moom duma wéy lii man mii pendel mu gën tubuy la jar naa xaraamal meetal ga moo gën kaala yañ xaraamal déglul ma wax la bis ba sëy ku bamba fa ndar war pake ngir yónneen ba mineli soo daani ilel bii laani ngir bëgg a rëmm ruuyi fil ji naani ngoon ak talaata say ko bamba dugg na gaal gañu naa ba nii dagana talaata jëy fan weeri fan ca weer wa duusaan ko naa fase ngaag tàngoor wa ma wax la gaaya tantu daam jëm gànnaar handeeg sëriñ Tuuba te ñëppay jàmbaar njëkkeel sëriñ xaafe rakkam moo jiite sëriñ Mamar Pendaay loxoom de woote sëriñ Masamba xëri jóob si xëri jóob ak njuugu moon xëri ñang may togg ceeb bisu keroog la Cheikh ma sii seen ndongo dikk taxaw fi kanamam nim ndongo ne ko nga def ma sa takk ndeer bi foo jëm nu xàndaate ma yor sa der bi xaadim ne ko dellul te dem ni ma daarul man naan te xam ne maa nguy ñëw bi ismi rahmaan laa tafalu si yan bi xëyril ismi fali nu suduratun xuboolil sënni baay Moussa Kane borom Tuubaa nee na kuy topp saa ndigal bàyyi lii ma tere loo suri suri yaa fi man doo taa suri ko xam ne doo topp ndigal bàyyi tere loo ma jegeñ jegeñ jegeñ yaay ka sori ne ci sa bopp ak fi mën ne ci man bokk ñaay pay yéen murit fi saa sa man ku ne ci boppam ñu balaak sa bopp dun yan woox raa nga fareeg sa lépp benn nga def lu baax ba dem jinaana wala nga def lu bon ba dem niiraani hasanallahu mi ne niiraani bi jaayi xayril xalq fi laa dunaani ku ne ci man man ne ci moom tey yoor ko haadina ak àllaaxira far dëkkoo ko rëmm ko sàmm ko ba koy jofal ko mu far dëkkoo ko fi man ngir koom yi ak saahir si ma jox yooyo suma baatin del si ne man kaana yuridu la ma wax ca alquran laay def ma siise na tasax alquran ne li qawli taala man kaana yuridu harsa laa qidata naasi lahu fi harsihi wa man kaana yuridu harsa dunya nuutihi minha wa maa lahu fi laaxirati min nasabin keroog la wëlbate ko del si daaru murid yi ak waa Mbàkke ñëppay waaru sëriñ ma siise dal dem ba xabbaan ca moom raxat mu bay fa booleeg yalwaan xamul lu dul benn dërëm ca mbay ma mu xam ne yàlla ko dogal caat ma mu dal dafa dërëm ba yóbbu gànnaar jox ko sëriñ Tuuba mu dolli koo waar lay loole mooy ba muy nuyoog Seex Bàmba Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal yónni ci junni bis ba Serigne Assane Thiam moo ko yóbbu gànnaar ci ndigalal Cheikh Ibra Faal may jàmbaar Cheikh Bamba naa murid ya kaay leen seere ne junni bii dërëm bi daal laay seere borom dërëm bi yéene woon na junni te lu ma waay yéene ma ful ko junni nel ma la si na yun fi xoona yàllaa ko wax mooy fay tey ful te noona mi atu xabatin la waxoon ciy fépp te xam ne guba xëpp loola fëpp dalaay xamal ne mooy borom ji saaw jàngal yu laayibu li man yi saaw alquran ne inna lazina yunfiquuna maa lahum fi sabilillahi kamaasali xabatin anbatat sab'a sabaa'ila fi kulli sunbulatin mi'ata xabatin wallaahu yulaayibu li man yi saaw wallaahu samiun aliimun keroog la Cheikh Bamba yónnee waalo Cheikh Ibra Baal Cheikh Ibra Baal Cheikh Ibra Baal mu dikkaan dang mbooloo Cheikh Modou Guèye gol limal ñay roqi Ahmadou Lo ma Samba Ndiaye ca waqi Cheikh Modou Guèye gol limal ñay roqi Ahmadou Lo ma Samba Ndiaye moom waqi moog sunu maam Ceerno la Bamba xooxandoo yii yaari Ibrahima bu leen leen toppandoo danaa la wax li leen sëriñ bi sant ba ñu demee gànnaar ku nekk ay sant na ngeen ma dégluwaat te ubbi xol yi jëmee ci Cheikh Bamba xalam ci xel yi bàyyi njàmme ni mu delluwaat wax leen xibaar yi gànnaar ca nga nag Cheikh Sidi yëga bu ak la ca kaw ca xat fii soo daani ti xat Bamba xam la xew ca wuur ya xandoon ak ci dara jaay xayral wara xayral wara ba dadal isam la xa duwin rabbi bi jaay Moustapha ibn Hashim yàlla tasaareel na comme booleem buur ya dikkoon ba daarooy ba gër di siix ya ñaa li nañ leen yenn buur yi jébbalu ñaaxala ku wér gell war duñ noppalu lanat liyal quluuba wal abdaanu salaamanil biilaanu wa soodaanu lam yal xo nii amiilu la xiyaalu kaalaa wala wasiilu wal xiyaalu baa mbaaka wax booba ci réewum gànnaar buur su xaree ba dàq lay jaar loolaa taxoon mu way hidaa teg rabbana lanoo lanaa te moom bi jàpp naa banaa yëpp man Seex Bamba jàpp naa leen fi zaahirin wa baatinin moom naa leen xam na ci ñoo xam ne danaa leen dàkku xam na ji ñoo xam ne danaa leen dëkkoo xam na ci ñoo xam ne danaa leen sëlbu xam na ji ñoo xam ne danaa leen yëlbu xam na ci ñoo xam ne danaa leen yóbbu ba fa ma jëm boole leen a rëbbu xam na ci ñoo xam ne danaa leen folli réeki leen ba seeni sët sax gàlli ca moomaat lañ folli noonu bu mag ba réeki garaatam yi mu mel ni pël ba mu daldi de baaduloo daldi yalwaan di dem jaar doom ja ñoo àndee xaaraan kër yam xamoon mu jaay ko sii di gaawaan ak naari góor yi yëpp fab di laaxaan rilwaan ak dir kamb ak lu góor doon fa mbaaxaan yaa ngoog alaaji Seex daan na ko war suba ngoon ca yooya xat la noonu ba dikki jébbulu ci Seexu Bamba fekk Seex ya sébbulu murit ma lim fi buri bamba jàppee daaro na doon ruu yëpp ñu tuub di waaro ma njëkk la liman mbaaxaan ma moomoon yoon wa bamba ko jox Seex Ibra Faal moom yoon wa ndar la ko fekki dal de jooy ba xaacu tuubal ko raamal ko maroo diriccu noon naa la mbaaxaan ba ci lun marooxee keroog fa njur bel tey nanoo marooxee mbaaxaan ne borom Tuubaa Firxaw na sax bu tuubaloon Muusaa Kaliim kaar mu jéggal ko fa bëyru kalsuum Abdul Xafoor la ko sëriñ bi tuddee ngir xam ne mooy jéggal li ku leeb dee fab Abdulaa kaar ma defoon rakkam ja dellu ko jox Seex Ibra Faal jëwrin ja limal ma sekk julli ak bur yi saa jóob limal ma sekk julli ak moor yi sa ñooy doomi Lat Joor ya dikkoon daaru de tuub sëriñ ma Samba Mbàkke moo nas ruuya jébbal ko Seex Bàmba ñu faw xabuur ya Cheikh Ibra Diop Paris la doomi Lat Joor Cheikh Modou Ndumbe Mbakke yor ko mooy guur fab laal la faal ak mbenn la faal ak gancire jébbal ko Cheikh Ibra te gër yaa bare fab daal di mbuj buli ci kumba cele maan yii gel la war dootuñu lekkaala maan mu jàpp baay mbayaat ma ak doom ya jox leen borom gaawaat mun na seen wuya fab bu ne njaay ak sidi njaay jébbal leen li sëy xiyam bi Moustapha mu yor leen fab si nijaay ahmadu moom ma koraja jébbal ko am li mu tula kat xaraja Cheikh Abdou Khabaat ak Serigne Omar ñaan maam dem na baati Mbàkke xam na lumu ñaan ma koddu sàll mañ sa mbay ma sàmba saa ngoone ñoom xam nañu Seexe Bamba bar saalum bar geet wa bar jaag bar ngay xam nañ si tam maam balla xay saa ma fa ngay liman ma bursin kumba ndóo fiin mbër ma njurbel la jébbaloo ca Bamba mbër ma Cheikh Samba Tukulóor la Bamba yónni mu jokko naaru góor wu weex wuy sànni ca moomaa la dal depuis ci Saalum waaye réew ma jébbalu ci moom naa maalum xal buri moom salaw joxoon na boppam alaaji Cheikh Anta tofal ca léppam neel ñu ko boole moo dikkoon fa Bamba naa wàcc naa xadina tey laay Bamba mu ne ko yaa wàcc xadina ngir mbonam gi am xadinaa la wàcc ngir sa mbon gi mu ne ko yaa xam lépp moo maa ngi borom jumaa ji jox naa la saarooge te maa ngi yaa ngi keroog bisam jébbal maa am nay firnde Cheikh Bamba nangul na ko mu doon na fardi nee na ko yaa ngi maa ngi buur yàllaa ngi xam nga ne mooy buur nangu naa njébbal gi sëriñ bi juum ndigalal boroomam ngir bëgg a topp ndigalal moroomam demal te toppi ndigalal buur yàlla te daw la muy tere te xam ne mbër la demal te toppi ndigalal buur yàlla te daw la muy tere nga xam ne mbër la ma dolli dolli lépp ca buur yi jébbalu kon tey nga xam ne say ko bàmbaa jébbalu neel mbutu buur a ba